Pape bi nga ànd non Pape déglu ma wax la oustaz. yow ci bi nga àndul mooy bi ñuy wane yu ñaaw yi. comme bii xew ci TikTok beeg internet bi waaw boobu kay boobu kay baaxul kenn ànd ci mais am na bu baax bi muuru naa day dox xëy. non dara nekku ci. na moo eh, eh, xoolal Pape eh, anytime. Pape jigéen dañ koy sagal nga muuru rek xam nga ñu fuddeen la. mais Pape yu mariage. mais Pape loolu dara nekku ci. boo defee bu sharia. boobu laay jot. laay wax woo waxtaankat yi ñu taggal la yonent bi boobu laay wax boobu dagan na wallaay boobu laay wax oustaz mais bii ci tiktok bi waxuma bi bi beeco yi feeñ de ote nii waxuma boobu de di fecc ak seen tànk yu ër hmm? ah yow yaa gis seen i ër alaaji pap seen tànk yu ër seeni xeesal yu maasewul ñàkk kilifa ah man loolu gisuma ko da nga ko gis kuñ war a takk nga taxaw di fecc di lëmbal image yi di fi des bu sa doom màggee ñu ne ko keroog bi ñuy takk sa ndey la lendemain bi boobu baaxul moom ci lañ doon lëmbal lii boobu baaxul waaw boobu baaxul bu tax góor gu am fayda war ngaa nangu di takk jabar muy anytime waaw li ma la wax waaw tu as raison di takk jabar côté boobu ànd naa yow mm. yaa ngi yaa ngi yaa ngi fab bi nga demee bay takk jabar yaa ngi mm. créer société mm-hmm. pour am ci ay employé yu yiw mm-hmm. ay saalihiina ak ay mm-hmm. saalihaat waa léegi nga ne yow da ngay takk jabar la lendemain da ngay bàyyi sa jabar mu fanaanee lëmbal ba bët set invité ay xaritam mais comme ay xaritam amuñu classe amuñu personne nationalité jëmuñu fenn kun ci ni ci otes si nga bokk doo ko gëmee ñàkk fayda ba mel ni lu ma la mënta wax te lu ma góor ga ni woon balaa ngaa xam ni kiy fecc wérul nga dindi son bi rek di ko seetaan muy muy muy lambar lambari. waaye yenn saa fecc day ñaaw dëgg la dëgg loolu daganul alaaji Pape. d' accord bu dee ceetal nag charia daf koo nangu. yow laa àndal. tante koñ ba koñ. ku ngeen àndal Modou Fall. Pape yow laa àndal Modou Fall. Pape ah. tante koñ ba koñ. Ah, waaw yi ñëw. tracteur la mooy la. mooy ñiy séddale. ay ah, traiteur ah traiteur. traiteur waaw ok yi ñëw. ñoom bétti duudu. alaaji Pape xoolal nga laal sa trois pièces bu baax. Ah, di jaagar jaagar. Ah, gan gu ne nga accueillir. waaw añ jot ñëpp añ. ndékki jot ñëpp ndékki. reer bi kazaale. anytime. ñëpp xam ne tey diwa doon takk jabar. donc ceetal da ko nangu donc ceetal dara nekk. ceetal sariya nangu na mu nga question. Euh,